pour exister kooku du la wax li nga xam ne mooy sa intérêt lim lay wax mooy lim ciy jëriñoo moom te am na nu mu doon demee dans fu mu bokk et je pense que Barthélémy Diaz a eu euh, pour moi le flair d'abord de rencontrer président Macky Sall ci li mu wax après avoir discuté avec Ousmane Sonko après avoir discuté avec Khalifa Sall c'était peut-être pour avoir des portes de sortie d'abord pour euh, Ousmane Khalifa certainement pour Ousmane et ensuite pour le président Macky Sall je ne sais pas hein, ce a à l'intérieur mais li amoon solo mooy bu ñu demoon waxtaan forcément dina am résultat la preuve ba ñu waxtaanee am na résultat yu mu jur yoo xam ne Khalifa amal na ko inter amal na ko njëriñ amal na njëriñ Karim Wade amal na njëriñ yeneen ak yeneen yeneen est-ce que waxtaan boobu mënuloon amal njëriñ Ousmane Sonko. mais mais est-ce que à l'époque a des faucons autour de Sonko du ñu nekk dara. mais jàpp nañ ne Ousmane Sonko nekkee ñoom dinañ ci nekk dara parce que bokkoon nañ ci mouvement mouvement bi ci dynamique bi mais ñooñu du ñu nangu ay ruptures yoo xam ne peut-être ñoom dañ ci dañ ciy. sànq mais mais Ousmane wax na France 24 ne son arrestation dina conduire le pays à une guerre civile. Euh, ñi nekk ñi au kaw ñi mm. nekk Pastef yàgg nañu bàkku ne jour bu ñu laalee Ousmane Sonko ci la ñuy xam. Euh, ñoom li ñu représenté ci ci ci réew mi. Mm. Abdou mbay est-ce que ñi ko doon Abdou mbay démb nee na il regrette de ne lui avoir pas parlé on lui a pas parlé il a fait beaucoup d'erreurs euh, est-ce que waxoon ak Ousmane Sonko doon na doon jëriñ Diala dans la mesure où lui il était sûr de son coup euh, jàppoon na ne tey son arrestation pouvait conduire le pays au chaos et que les autorités gouvernementales doonuñ doon mas a ñeme franchir le le Rubicon. waaw illusion la. mais ki waroon wax ak moom wax na ak moom muy le président de la république ki war a toog. mais moom mënul dégg discours kooku c'est son adversaire. déedéet erreur la warul def Macky Sall adversaire irréductible non c'est une erreur loolu politique comme président Abdoulaye ni mu ni mu ñu jàngal euh, batiment la dafa am ñaari issue ñaari euh, accès. ascenseur ak escalier daf ñu daan jàngal naan a chaque fois qu'il voulait discuter ak Diouf bàyyi leen ma dem waxtaan ak moom moo gën ndax mbir mi teg na teg boo xam ne mun nañ ci continuer mu yàqal réew mi loo xam ne peut-être dañ koy regretter te ñun dañu war a tabax réew mi donc waruñ ko waruñ ko yàq deuxièmement il di fi ma nar a jaar na yéex pour vous à vue mais moo gën a wóor bu ñu jëlee escalier yi di dem ñun mosuñu dem gouvernement ce sera l'occasion de connaître les rouages de l'État bu ñu demee yéeg bu ñu jaree escalier bu ñuy wàcc bu ñu demee ba mënatuñu yéeg bu ñuy wàcc nañ xam fu ñuy jaar mais da ngeen ma bëgg a jaarloo ascenseur mais imaginez ñu dugg ci ascenseur bi dem ba ñu ngi jëm huitième étage ñu ñëw ba quatrième étage ascenseur bi panne câble bi dagg ni ñu def chute boobu duñ ci mucc dama ragal ne loolu moo dal projet Pastef pourquoi parce que président Ousmane Sonko oraam entre dafa gaaw ba mu jël benn dimension bi mu dem député mooy xaw ma plus for reste la demee député élection présidentielle deux ans après mu def plus de vingt fois son score. six cent quatre vingt waaw loolu dafa yéeme pour quelque boo xam ne da koy da koy griser da koy griser rawatina xale yi jox ko bopp loolu peut-être jàpp naa ne moo créer euh, crise d'immaturité bi tax gisul ne. il va droit au mur aujourd'hui bi président tàllalee loxo mais mos na loxo ci Covid bi dem na donte wax na ko li nga xam ne moom la gëm ainsi de suite mais mënoon na aussi donte moom du teew ca jotaay ba mu faciliter euh, ñi nga xam ne ñoom la àndal mooy yeewu askan wi parce que Khalifa Sall était favorable d'autres personnes qui sont dans l'opposition étaient favorables mu per mu fexe favoriser parce que moom su waxoon ne dañuy dem ah wala gaa ñi nañ seet une délégation au nom de Yewwi ñu bokk dem ko dañuy dem ñoom parce que gaa ñi ko wër ñu ñëpp ay yóbbaale ma la ñu bu Ousmane ne fii la foofu la ñuy wax parce que ñoom kenn ci ñoom euh, amul aura Ousmane Sonko euh, mënul demal boppam yaakaar na ne c'était le fruit était mûr et que si Ousmane Sonko cueillir na fruit bi buñ koy dagg ñoom seen part dafa taxaw loolu peut-être moo indi jafe-jafe yi mais jàpp na ne waxtaan moo gënoon